te ñoo noppi ci di teewlu waa jile yi saa su nekk ay waxam day am contradiction mu wax tey soppi ko ëllëg moo fi newoon Bassirou Diomaye Faye yóbbu Ousmane Sonko du ko fi bàyyi tey Diomaye mi ngi nii bokk na ci candidat yi war a dem ci jongantey 25 février bu atum 2024 moom Cheikh Yirim Seck ñeenti weer ci ginnaaw jàkkaarloo ak Papa nga njaay ca Faram Facce am ay kaddu yu mu yëkkati woon jëmale ko ci waa Pastef mu ne bu dee am nañu benn candidat boo xam ne ñëpp ne élection yi au premier tour démb ba muy janoo ak Maimouna Ndour Faye mu soppiwaat aw waxama loolu jaaxal ñëpp ba noppi condition ba mu tegoon mooy ñëpp ànd booloo nekk ci ginnaaw benn candidat wu Ousmane Sonko jamono ji mooy li am moo waral ñu ne nañu ko vaar ngir rek kenn bañ a am jiixi jaaxa ci kaddu yi nga xam ni moom Cheikh Yérim Seck da koy faral di ko yëkkati ñun benn missionnaire la ko jàppee xam ni day faral di génn ngir lëndëmal xelu ñenn ci askan wi te ba noppi itam li mu jàpp mooy moo gën a muus ñëpp moo ëpp xam-xam ñëpp ñeenti weer ci ginnaaw Cheikh Yérim sekk lii la waxoon waa Pastef bu dee ànd nañ booloo nekk benn. benn candidat Pastef bu taxaw mobiliser force Pastef yëpp mën na gagner au premier tour. AGT News. loolu mu waxoon ñeenti weer ci ginnaaw tey moom Cheikh Yérim sekk génnaat na ci nee na fa mënul sax am plus de 35 pour cent ci jongante yi ñu jëm bu fa sukkandikoo ci bépp sondage boo xam ne jamono ji def nañu ko. amul benn sondage Sénégal. configuration politique fii bu Pastef am plus de trente cinq pour cent amul ça n'existe pas moo waral ñu samp aw laaj ne Cheikh Yérim Seck lam njëkkoon wax fan la ko jëlee fan la ko tegoon ak ci yenn sondage la sukkandiku woon. bëri na ay vaar yoo xam ne mën nañ koo def ci moom milee di Cheikh Yérim Seck ay kàddoom soxla wut a déglu. ndax nag li ñu jàpp mooy moom bu ko neexee mu analyser lépp tegu ci yoon. mu jël lépp teg ko ci dëgg waaye da koy neex moom Cheikh Yérim sekk mu pëllee foo xam ni leer na ko ne wute na ak réalité yi nekk sur le terrain. ay askanu Sénégal koo wax Ousmane Sonko la lay tuddal la ba candidat wam ci gën a fes di Bassirou Diomaye Faye. mel nag moo war a tax kenn ku ci nekk yeewu te xam ne jongantey atum 2024 yi ñuy dëgmal askanu Sénégal moo war a jël ay responsabilité ma bëri na ci ñoo xam ne leen naay seen yitte jaxase xelu askan wi dugal si ñoom jiixi jaaxa xel ñaar bu mën a tax ñoom la ñu gëmoon ñu tàmbali di ci dute waaye li am ba leer mooy genre Cheikh Yérim Seck gile kenn du leen ci bàyyi kenn du leen may dara dañu gën a yeewu te xam ne ci bëri ci waa système bi bëgguñu nguurab Sénégal dal di fiy jugee bëgguñu projet bi daal di fiy taxaw ndax bés bu amee rek seen i intérêt mooy nekk enjeu na privilège privilège yu bëri yi ñu doon am ci réew mi fa nar a daal di nax saay ndax lépp luy alalu askan wi dañ leen koy delloo redressé waat réew mi teg ko ci yoon méritocratie jiitu ci lépp loo xam ni dañu koy séddale askanu Sénégal daa war a génn ci ay jafe-jafe kon nag kàddu yi Cheikh Yérim Seck yile jaruta déglu jaruta bàyyi xel élection présidentielle bu atum bi ñuy dëgmal bu dee Ousmane Sonko am na ci candidat bu mu tànn ne mooy ki ñuy jiital nekk candidat principal bi la mu premier tour gis nañu Aminata Touré nekk ci ginnaaw Ousmane Sonko professeur Mary Teuw Niane ak ñeneen leader yoo xam ni seen yitte mooy li fi nekk daal di fiy jógee ñu daal di samp projet bi nag na ñëpp dalal seen xel nag ku jëlagul woon sa carte électeur na nga gaaw daal di koy récupérer ngir waajal bésub jongante boobule askanu Sénégal moo war a am ndam opération simpi système bi samp projet bi bu amee rek toppite gu rëy dinañ ko gis ci réewum Sénégal yaakaar bi askan wi am ci Ousmane Sonko am nañu ñu ne du mës a tas ndax moom ak ñi mu àndal boobu ba tey ngor dong la ñu wane ci langum politique gi AGT News